ndax priorité la par rapport ak li gouvernement bi war a def lépp te mu war ko am déet foofu la question bi ne parce que ni man ni ma ko mën a rafetloo ñu bëri ñoo xam ma maa ngi waxtaan ak ñoom rafetloo wuñ ko noonu mais nag àdduna mooy demee noonu mais nag lépp loo xam ne tey waa Pikine ñu ngi koy daj waa waaye ñu ngi koy daj pour mën a ñëw Dakar waa Parcelles euh, bu ñu leen ci mënee wàññil coono jooju. Euh, pour ñu mën di voyager pour mën di di di di di déplacer wu loolu affaire bu baax la. maintenant xam nga projet yu mel nii boo koy démarrer euh, da nga war a ci biir projet yu mel nii nga nga nga nga nga nga inviter sénégalais yëpp ñi nekk ak yow ñi contre projet bi yëpp pour yow boo paree nga mën ci am vraiment synthèse yoo xamante ni boo ko appliqué vraiment di nga ci mën a am euh, lu rafet a rafet boo ci xaar démarrage nga am démarrage bu rafet a rafet waaye remarqué ci yu projet yu gouvernement Sénégal secteur privé de ko souvent intéressé yow bi nga acteur direct la première gare routière privée au Sénégal man ko am mais man waxuma invité wu ma bu yu nga réflexion dafa la vision laaj xam-xam dañ ñu ñu invité mooy ñi nga xam ne tey jii nii ñoo jàpp seen làmmiñ yi di wax suba ak ngoon ci secteur yoo xam ne xamuñ ci dara man tey mënuma nekk promoteur dans le secteur transport terrestre secteur transport maritime te ñu def lu mel nii te invité wuñ ma waaye li ñuy bañ nag mooy souvent ñu ñëwee ne dii dañ ko bëgg a démarrer nga ne est-ce que xam ngeen xool ngeen fii est-ce xool ngeen fële est-ce que xool ngeen fële yooyu ndax xool nga fi ndax xool nga fële nga wan leen xam-xam ñoom bëgguñu façon yooyu ñoom façon euh, tey euh, fonctionnaire yu bëri ci administration bu ñu am ay collaborateurs dañu bëgg am ay collaborateurs xuusmaa ñàpp yoo xamante ni loo wax ñu ne gonga te loolu yorul réew mënoo demaatee lu mel ni BRT nga am secteur privé am ay acteurs économiques yu opérationnel yoo xam ne convier woo leen yu ci ci projet yu mel ni pour ñu mën la wax xam-xam voir le gis-gis voir la vision ce qui fait qu'aujourd'hui projet est en train day mujj di Au Sénégal tay gouvernement sénégalais gouvernement Macky Sall am problème ci niveau secteur privé problème c'est que le gouvernement ci pas moko créer secteur privé amna ci organisation patronale ñun ñi mais secteur privé tamit un ci cadre institutionnel moy chambre de commerce Le gouvernement a bu jëlé lu mel à 40%, comme ni ko da war a loger au niveau de l'institution consulaire nga xam ne mooy gérer opérateur économique yëpp ñun voyagé nañu xam chambre de commerce yeneen dëkk yëpp lu ñu liggéeyee tey boo par exemple dëkk boo xam ne man chambre de commerce nous lu muy le ci ci ci lu mel ni Turquie nga xam ne tey luy compagnie luy PME PMI chambre de commerce turque moo ko comprendre c'est à part de là-bas foofu noonu la ñuy xool les acteurs économiques yi nga xam ne ni identifier nañ leen comme de véritables acteurs nous ñëw associé leen ci genre projet yu Ce que li ñu daloon ci Air Sénégal dinañu dalaat peut-être ci affaire BRT bi lu ñu dal ci Cosama peut-être dinañu dalaat ci affaire BRT alors que associé wuñ ci comme li ñu war associer le secteur privé local te que du lii rek ah, dafa bëri secteur yoo xamante secteur privé local avec ses véritables acteurs qui peuvent participer ci yu mel gérer ko mais gestion dañ lay pousse dem créer ay société yo xam souvent même ña fa ne sax créer société yo di gérer euh, activité yu mel noonu moo lo ci gis souvent euh, responsable yu mel noonu buñ fa joggé société disparaître xam nga xam nga projet ça c'est c'est c'est c'est l'acteur économique qui parle xam nga projet nekul ni tay da nga ne projet ngi ni rek démarrer naa ko parce que war euh, li les tenants et aboutissants am lu beul xam ko maîtriser projet bu BRT bi ni. Ken waru ci meuna démarrage lu melni ministre Diop nga emploi yor formation professionnelle nekku ci acteur parce que nous ngi le transfert de technologie parce que BRT kan moo ban société lañ choisir kan moo koy defar yan condition la koy defaree xëy ñëw yupp ñu ay BRT yoo xam ne boo ci bëggee changer ampoule tu as des problèmes donc tey phase même fabrication euh, bus yooyu sax ay sénégalais ouvriers sénégalais désigné par le ministère de la formation professionnelle dañ cee war a bokk nu ñuy defaree raay yi dañ cee yooyu yëpp ci cahier de charge la nga bind comme ça ñun tey on sera même en mesure après la euh, fabrication de de de de de ces bus de de des voies you bus qui BRT emprunté ouvrier sénégalais du début à la fin maîtrise maîtriser euh, la fabrication de de tout ce qui tourne autour de la de euh, affaire BRT pour mu démarrer vous ñëw ne ñii jaay nañ la xamoo sax luñ la jaay bu moteur paane nooy changé euh, pompe ba bu nooy changé huile ba nooy defee vidange ampoule sax bu burlee ci ci ci ci ci ci wagon yi xamoo noo koy changé c'est pas intéressant yooyu nag secteur privé yooyu nag am na yenn genre euh, négociation yoo xamante ni ñun au niveau du du secteur privé au niveau de de de de de l'institution consulaire bi au niveau de la chambre de commerce même négociation yu bëri yoo xam ne ni fonctionnaire mu koy def te nekku rôle am li président Macky Sall wara wara wara régler tay comme injustice dafa bëri bëri na trop ba ci ba ci ba ci choix de nomination de ces de ces directeurs généraux ce qui fait qu'aujourd'hui c'est du surplace place. nga dañu mimé ni nga foog na ngi dem fekk bougé wu ñu meetar et ça c'est c'est un véritable problème